Bienvenue sur ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla ay maqaama yalaw uqal bukaaw ala saddaati maay bëgga way tey jii ma way fii sangub góor ñépp yalaw bismillah bismillah inna waliyallah barke borom Tuuba dama bëggoon ñëw ak yéen ñeenti façon doomu aadama ñeenti façon doomu aadama yooyu nag dafa am koo xam ne dafa baax am koo xam ne dafa iñaan am koo xam ne dafa soxor am koo xam ne dafa dañ kumpa ñeent ñii nag danoo bokk ndey te bokkuñu bàyyi ku baax ki nag moom yàlla rekk lay wër waaye ñett ñii ñoom balaa ñoo gis yàlla ñoom foog ñu jaar ci ku baax ki ku iñaan jukkoom balaa mu koy wone rekk foog ku baax teew ku soxor balaa muy mën a won soxorom rekk ku baax teew ku dañ kumpa balaa muy mën a wone dañ kumpam rekk ku baax teew ma ñëwal leen nag ci dañ kumpa bi dañ kumpa dañ kumpa danaan ku baax kii danaa xam mbaaxam gii lu ko waral mbaaxam gi ndax day wanewu walla jikkoom la danaa ci xam dara dana la dañ kumpa di la enquête bàyyi la xel moom bëgg na rekk xam ci yow rek dara rek lu mu mën a wax ku dañ kumpa gi fu ne nag dana la ko enquêté dana la bàyyiloo xel ci façon bu ne bu yàggee nag day xëcc doomu ndeyam soxor su xëccee doomu ndey soxor doomu ndey soxor nag commencé laa soxoraatu nag commencé nag di jug ci say biir ku ko nangul lu bon li mu bëgg mu fay la xaalisam pour nga bàyyil ko xel ku baax kii lu waral lool lu waral muy am lii te ñoom mënuñu koo am suñu demee ba xam ne tële nam ñu dem wooyu seen doomu ndey kiñaan seen doomu ndey kiñaan bu ñëwee ne yoo ñun kat jéem ba sonn ci ku baax kii mënuñ ci moom daal waaw yow mu iñaan mi nag dañoo bëgg nga jug ci moom moom it mu jóg di def ay débat deewam te ñooñu kat yàlla da di may nag weccet bu nu mën a demee di defi lu ñu bëgg def waaw bu baax ki nag liggéey bu ñee liggéey ci moom moom mu ngi liggéey lu ko ëpp ci yàlla sunu borom kon amul jot boo koy pakkasalit du daanu donte woon nag dina sonn ndax li koy sonal mooy moom ni mu baaxee bu sañoon day am moroom te am moroom ci lu baax yombul waaye nag ku ko jéem mun ko lu baax ku ko jéem ku ne mun ko dinaa ñëwaat ak nag ci barkeb say xi fàddilu mi yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw ci barkeb say xi fàddilu mi ay maqaama yàlla